qui l'explique non je veux dire ça c'est c'est c'est pas le plus important xam nga looy looy def aussi ci moment bi lu mu laaj mhm. dañuy def pa passé épreuve bu metti depuis des années ñu nekk ci ci ci coono ñu am ay incertitudes yu bëri ci période électoral bi ak campagne bi ñu jékki-jékki kenn xalaatul woon ni le 2 avril dinañu am président bu bees mhm. donc l'enjeu du moment c'était de féliciter les les ceux qui viennent d'être élus. ak le peuple sénégalais et d'ailleurs damay féliciter le peuple sénégalais d'abord. ma leen di delloo njukkal dëgg dëgg dëgg parce que ils ont montré la voie. ils ont montré que Sénégal léegi fi ñu toll suñu maturité démocratique permettre tul mm-hmm. que ñu toog rek jàpp ni que politiciens yi mën nañ ñu dugal fu leen neex. et donc finalement c'est c'est ça qu'il faut d'ailleurs d'abord saluer la maturité du peuple sénégalais et à l'instant T boo féliciter le peuple sénégalais da ngay féliciter les vainqueurs aussi parce que c'est ça l'enjeu démocratique c'est ça être républicain mm-hmm. donc ñu féliciter président Idrissa Seck je l'ai vu kooku jarul may def ay témoignages euh, écrits parce que on est on était. mais vous vous étiez peut-être un peu déçu du résultat euh, parce que aussi yaa ngi koy wax sànq ku ci nekk euh, maanaam kàngam yi li ñu am méngoowul ak li nga xam ne moom lañ doon yaakaar yaakaar ci ñoom et cet échec aussi est le vôtre en tant que en tant que boo nekkee di di dem xare ndam ngay wut boo amul ndam. forcément di am échec mais c'est pas parce que am nga. forcément pour cent c'est la la la waaw waaw <laughs> moo mais moo tax ma ne la lecture bi mënul nekk la même lecture classique 20 pour cent yi bi mu koy am. y avait contexte. Mm-hmm. bu élection bu amoon boo xam ne moo tax mu am 20 pour xoolal coalition bi mu amoon d'ailleurs en 2019 léegi nga ñëw 2024 mu dem élection am 1 pour cent donc da xool qu'est-ce qui s'est qui a